yéen ñii di suivre suñu kër gi di Faaida TV bu ngeen bëggee di jot ci suñuy programme ak di seetaan suñuy vidéo da ngeen di abonné ci seen bii di Faaida TV ngir abonné da ngeen di bës ci bind bu xonq bi ñu bind abonné waaye bu leen fàttee bës kolos bi ngir man di jot suñuy notification waaye bu leen di fàttee sem tey partagé suñuy video ak Faaida TV njariñ kase la leen di jural asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi nga xamante ni yéen a ngi suivre suñu kër gi di Faaida TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay tey nag ñu nekk fii ci kër Serigne Alioune Fall Serigne Alioune Fall di jàmbaar lool ci wàllu lasraar di fajkatu xaajo bu mag. tey nag ñu dikk ci moom incha allahu rabbi fas yéenee def ak ay waxtaan ak moom incha allah ci ay njariñ yu am solo yoo xamante ni dina ko jariñ jaamu yàlla yi incha allah may leen ko gratuite xam naa nag bala ñuy sori ci kàddu yi dañuy nuyoo ak moom Aline ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatullah El Hadj Makhtar ñu ngi lay delloo nuyoo macha allah di la ziar bu baax. Mm-hmm. Eh, di la di kontaan di am contentement lool macha allah si seet si bi ñu seet si. Mm-hmm. di la ñaanal yow ak sa bi nga xamante ni macha allah muy Fayda TV. Mm-hmm. di njariñ kase. di la ñaanal yàlla su borom ubbi la si xéewal macha allah ba fépp fu ñu dégg yeneen télé yi. dégg la fu fu raw foofu macha allah yàlla mën na ko te yàlla na ko yàlla def. si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sëriñ bi. ñu ngi lay jaajëfal ci nuyoo bu am solo boobu macha allah kàddu yi lépp rafet xam naa bala ñuy sori ci kàddu yi rek. Mhm. dañuy dikk ak yow rek ci njariñ bi nga xamante ni tey moom nga fas yéenee may askanu Sénégal. Mhm. moo xam ku nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Mhm. xam naa ni moom incha allah njariñ lu am solo lay doon. duma ko tudd du ko wax nag yaa ciy dikk sëriñ bi tey ban njariñ ngay may askanu Sénégal. waaw sëñ Maxtaar tey njariñ li ñu indi. Mhm. di nekk njariñ loo xam te ni macha allah lu am solo. Mhm. te lu yomba def. Mhm. jëlul benn temps. mu ci wàllu cat cat. boo seetoo cat moo sonal nit ñu baree bari bari bari. lu sonal doomu aadama yi. waaw leen di yàqaal ak seen alal ak yëpp cat ci la bokk. te mën a yàq lu bari nag. wallaahi azim. li ma si joxe nag mooy njariñ lu am solo. am solo ngeen teewlu ma. xam ni. fii rek lay xew Fayda TV. incha allah rabbi muy ginaar ngay wut. ab seq seq. waaw seq gu ñuul wala gu xonk wala mu doon baax na. gu mu doon baax na ak seq rek na doon seq rek. Uh-huh. nga wut sa siwo ndox. Uh-huh. lu war ni mën na laa sang. Uh-huh. nga jël seq ki naqal ko ci biir ndox mi. naqal ko ci biir ndox mi. waaw mbaa du dee. du dee mukk mais du yàgg. trois secondes nga koy naq rek ko. nga koy naq rek génnewaat boo ko naqal ba ginaar gi faatu nag bay ba nga bañ a sangoo ndox mi. loolu leer laa la wax. bis boo ko naqalee. trois secondes génnee ko dama sang ndox mi. incha allahu rabbi fa nga ko sangoo fa lay cadd jeexee si trois secondes ngay nëqal ginaar gi génne. dem sangoo ndox mi dem sangoo ndox mi. lépp lu nekk ci lépp lu nekkoon cat. ci sa ba nga juddoo ba tey. Mhm. wala yansi mu dañ. day dañ. waaw ba jeex tàkk amul sikk sàkk ah, sëriñ bi loolu yéeme na te day waar macha allah. <laughs> amul sikk sàkk ci am solo boobu nga xam ne nga ko. di njariñ am solo macha allah. Mhm. ah kon xam naa ñu ngi la ciy jaajëfal rek. xam naa incha allah ñu tàggatoo rek incha allah rabbi ba beneen bis incha allah ak beneen njariñ booy indil. askanu Sénégal